fédération des groupement religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba wala boog ittihaadu atbaa'il qadim li taawuni wa tamasuki bi diinil xawim ci turu bureau fédéral bi commission communication moo leen di présenté yoonu saxaaru njaareem ba Touba waaye ñu mën koo tuddee ki bëgg naxe ngir jël alali jàmbur ak ki bëgg ñu nax ko ngir bëgg ndigalul yaakaaram sar ba mu réaliser ko jamono ju lëndëm réew mu jaxasoo seytaane taxaw tem ngemb tubaab yi ñu yor doole ju bari sotti ko ci doomi aadama yi nekk ci dun bi nit ñu baax taxaw ñeewante diine jaay seen lépp ngir taxawal ko samp diine ñu xàmmee ci senegaal ku ñépp xam jël li xam nañ ne ponk la boo xam ne bu màgg a màgg la ci biir ponki lislaam yi euh, sunu borom itam réyal ko lool mu julli wax ci alxuraan ne julli moomu day soo ko dee joxe na nga ko war a joxe dana dox sa diggante ak lu ñaaw dana dox sa diggante ak yu ñuy moytu ak yu ñuy tare wa aqimi salaa inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar dem jàkka moo ko taxanoo julli bi ak bëggeej añ màkka mën ne ko ngeej falilu aj na xarni bi njool makka daal lay sigi reew eh. soo mu daal di reet giñ naa ne waar na xarni bi fam na ji xaylan bi yaa eh. jikkoy reew yooyu lew yaa eh. mu war a la si yaa amul ci xarni bi di doom gi met gi mu sago ak am ngu gi mu jago ak mu ga mu sago mu sa tawat ci xarnu bi na toomere yam daa tego te teewu ko ànd sago te boot yu mi fego te du la gaal ngay daw bu wàllu subaar muy jàpp ab madam bu sew dal fay jaar di taxaw fi kanamam dal koy laal bamba fa ñàpp ma daldi am aal ba muy masaa ba muy masaa madam del si laal ko ne tuuti koon mu takk far baal ko gaari basar ya ñoo ko boole der ba lal ko ca ma te demul ca ba Seex Bamba dal jàpp julli tisbaar kaay Badr ya maamoo li leen doy ko keroog la seen xërëm ya seer di yuuxu jinne ya bokk xaa ci bambaay seexu keroog la bamba xut bu géej yaa baxru waxit laa du salis géej xamal ni ñi dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wa in min sey te bul ko sikk kon sa turabi mos bi dan bul duusu lu du ragal yàlla mi tax ngay duusu wasahabiani ab doo xat sa ba sëriñ bu dul man mas ta rabba ñi nga fi laa labal dañoo mooy yàlla man masuma mooy yàlla seetal yi la kenn masu fee ñëw ngir liggéeyal Mustafaa kenn mosu fee jullee fajar mbaa muy safaa kon nag damay topp ndigal toppal ndigal te bañ far xiram wii bul topp ndugal keroog la géej ga fer ba tey du baawaan labbayat naa ko Bàmba yaa di ndaanaan keroog la jinne ya newoon maa yomba keroog la jinne ya newoon maa yomba jéemulu ànd ak Bàmba delloo Sàmba ليتالق الذين أسلموا من جناس دون من لم يسلموا jajay roog na baayoog dongoom ya kakku na koog karera maroom ya askiiru xulna tiiru nooru tam tiir ñooñoo fa daan siyaare bamba wiir wiir sax bambam juróomi at maa yomba mu delluwal batiku jaari ñuuli njuuma ya naa ko ban ba yaa di juuli foofee ban ba defi ay makkaati bi yoo xam ne jommal na sawil kataay bi am na ca yoo ne du feeñ ci dunyaa ngir booti yàlla yamu lamboong may ya soo ko gëmul yëral ji saawu sa kóor maalam ya jus ibraasu haa lañu fa jóor foofee la yeesalaate woon mu waayi boo jigéenu huurul hiinu ñëw a kaati bu huurul hiinu wal wildaanu ñoo ko fa daa jooru kasaari lu aanu soo ko gëmul yëral matar jumaan ja ba gis la ban ba wax nga xam saa waaja fekk na seex ban ba defoon na jàkk fa pegg quartier ga mu jublu makka su quartier gay liit ban ba daldi nodd ñuy maañ mu kabar noon ba faf ko gedd capitaine ba ñëw ne ban ba jàkk xew fi bul nu tanqal sa jullikaay bi xëju wi quartier ga wax ko ñëw tasaare jàkka ja njool makka ñu fa ne ko am nga maxraja njool makka wan na ko fa ay ajaayi boo may ko ndigal mu taalifaat mu aybu ba mu bindee salli banaa wa sallim njool makka tontul ko alal mukallim jibril tegtal ko wadru yasim buur yàlla tampeel ko jumaayi boppam danga tabax yaari jumaa ci ma tele nga daldi dellu yeesal kéew ma danga tabax jumaa juri i fa njurbel kenn du ko buddi kenn du ko julliin ramal danga tabax jumaa ju ri fa Touba tele nga dem Daaru Salaam ak Touba. néegub yàlla nag dafa doon lu am solo lool ci biir diine lislaam ndax mooy barab bi nga xam ne dees fi daje ngir wéetal sunu borom subhaanahu wa taala jaamu ko barab bi nga xam ne itam dees fay daje ngir waxtaane seen mbiri diine aka nas des fay daje di diisoo loolu tax na ba dafa doon barab boo xam ne bu am wàccuwaay bu mag a mag la ci biir lislaam sunu boroom subhanahu wa moomale boppam barab boobu te doonte sax moom moom bi yépp waaye boobu moo ko moomale boppam wax ne wa anna al masajida lillah ñi nga xam ne itam ñooy dundal néeg boobu sunu borom subhaanahu wa boole leen ci way gëm yi wax ne innama yaamuru masajidallah man aamana billahi wal yawmil axiri wa aqaama alsalata wa ata zaka yaxsha illa llah fa asa an yakunu min almuhtadin mu ne way dundal néegi yàlla yi day way gëm Bamba waan ci réew mi ci jéeri ji laay bëgg wax waa mi gannaaw bu ñu bisee ba dem daaru faf dem ba gànnaar dem jolof njaareem nit mu dal di ñëw Jurbel ba ñibbi Tuuba dinaa ci xam la luy jëriñ su booba ñu am xalaat yóbbu ko njaareem ba tax muy wax raa mu masiri ila la daal la law ayunoo sirra ma fi sayri ma raamu tubaab yi sàkku ak dem njaareemam waaye dañuy jàpp ni ci ak ñàkk xam lañ ko teg waaye bu xamoon dem demu moom lim koy jural tubaab yi duñ sàkku ak ak demam ndax sëriñ bi moom xamoon na film bi fi muy mujj waaye ñi àndaloon moom seenu bëgg lañ doon wéyee moom nag loola mooy firndeel rek ni moom la ma waxoon ca départ ba ni day liggéey rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñi ay jumtukaay lañ ko jox yu mu liggéey am naan xat fàkk kab laa xat bas sa fadd la sëriñ bi day gis lu sori waaye gis nañ diggante bi njaareem taraay goo xamante ne nii njaareem tar taroon na ko ba mag ñi jàpp ni gànnaar a ko gën a sedd wala ceeyee na ko gën a sedd ndax ay jafe-jafe yoo xamante ni nii ñu ngi ko koy teg ak méttal yoo xamante ni nii même ñi nga xam mag ñi àndoon ak moom sax dañ dañ leen ko doon teg waaye moom mu xam ni li ko suñ borom wan ala kulli xaalin dana ci àgg ndax yàlla amul distance ak espace ci digganteem lépp dafa sotti ci kanam te sëriñ bi ci gisuk suñu borom googu rek ci la doon gis moo tax lim doon gis jege lool ci moom te xawoon na sori ci ñun xawoon na metti itam te doon lu yomb ci moom ndax bu buñ delluwaatee ci bay woowu rek maanaam xat xat xat fàkk kabla xat basa fadla fadru wala wa nafoja ak diggante bi li mu fi daj ci ay mettit mooy tax ak déggam day wóote lool ak sunub dégg kii nga xam ne moo di Cheikhul Xadim radiallahu taala waxtu wu nekk fu mu dem fu ne la mu fa njëkk a taxawal moo di néeg boo xam ne fa lay wéetali boroomam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku tabaxal yàlla lu toll ne tàggum përintaan suñu borom dana ko tabaxal ak kër ci àjjana bu muy nekk njaareem boobee taxawal na fa néegu yàlla boobee nga xam ne moom lañ xam muy jaamukaayu yàlla ba na ca biir kër ga waaye ba ñu demee ba aajo ji laaj ñu wutaat beneen jàkka ci bitti boobee itam la sant mbokki taalibe yi ñu daal di amalaat genn jàkka joo xam ne mooy jàkka ji nekk ci pencum jaareem muy jàkka joo xam ne jàkka ju rëy la lool wax dëgg yàlla magi murit yi taxaw ci taxawaay ba gën a rafet yàlla dogal ñu liggéey ko ci anam nga gën ci nekku sëriñ bi radiallahu taala anhu lépp itam sotti ci kanamam mu joxe ndékkal ñu di ci joxe julli yi ñaar fukki at ak ñaar ci recherche tàmbalee ko 1994 ba ci 2016 1994 2003 Ibrahima Fall Madior taalubépp sëriñ Mbacke Madina dëkk Madina doonoon koo xam ne Cheikh Mouhamadoul Moustapha moo ko yar waaye boole ko ak i magam ñu war a saytu liggéey bi tubaab yi di def te jëmale ko ci chantier bi leen Cheikh Mouhamadul Moustapha def. gëstu yi jëm ci raay bi ak jumaa ji lu ci bari mi ngi bàyyi ci ay mbokk yoo xam ne dañoo jonjoo woon ak liggéey bi mën nañ cee tudd kenn koo xam ne ko ci ràññi ko loolu la mu di ku ñuy wax Serigne Ibra Fall Maajoor ca Madina. doonoon koo xam ne ci ñi doon liggéey ci ngasum raay bi la bokk doon koo xam ne da cee yoroon responsabilité waaye suñ borom defal ko fanu gudd benn waaye defal ko itam xel mu ñaw mu mën a takk ba tax mu nettali ci nettali yu am solo lool. 2003 ci la ñëw ca gaar ba. nettali si li mu fekke woon de vive voix. maanaam ci jëmmi boppam ndax lu dul loolu ñi ko dégg ñëpp ci ay nettali rek lañ ko daan déggee. waaye keroog bu mu dikkee gaar ba ci kanamu sëriñ ahmadul maxtaar xalifab cheikh mohamadul moustapha waaye ci kanamu préfet bu mbàkke ci kanamu gouverneur bu njaareem li ma ci fekkee te xam ko sama mag ji doon mbind mbind ma ca boole ca moo di yoonu ci coono bopp doy na war ci la version Ibrahima Fall Madior fekk see version bi nga xam ne moom la tubaab yi doonoon interlocuteur wu Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak ñoom Fall Madior la ñu bindoon 2016 lañ ciy door a jot. bi jumaay njaareem ji yeggee ñu daal di jublu nag ci jumaay Touba ji. bi nga xamee ne jàkk jumaay jàkkee njaareem ji yegg na ndax moom jàkkale ko tuddee woon waaye bi nga xamee ne jàkkee njaareem ji yegg na barab yi nga xam ne moo di Touba. tey barab bi nga xam ne mooy barab bi ko gënal ci kaw suuf ni mu ko waxe woon ak moo amal fi jàkk wala jumaa wasiyetu kenn xale di tëj kenn di tëj wuy si ko ñee ko nu ko fekk te mu woolu moom rekk lañ ko fekk waaye fekk nañ indi ko ay xéewal dal di waxal nañ ni dikk ngeen ñu ne wax mu ñu maali bu woo ñu ngeen ngeen di maali bu woo mu ñu waxee ñu tey nag daa leen ko wax bu leen ko waxee ba noppi bu ngeen ko dégg bu baax te jàpp ko jéem ko jëfee fay mooy jubaa joo xam ne Tuubaa la sàngam lay ne te doo sàngam gannaaw loolu dana war a guddee kilo yi natt dana war a yaatoo nangam kilo yi natt nga bëgg nag ngeen jëlee ci yi yoon bu réy sa ne daa ngeen maase ci yéen topp sama gannaaw te seen mbir wéeru ci man ngeen jot ca loolu laa leen ko loolu laa leen ko ñoom ñu koy jëm leen ci yàlla dogal na bu yàgg jëm leen ci bu ngeen ko gànte di ñu ngi ndigal nag mu day kii wàcc def ko dégg ngeen ñu ni waawoo muy jëm leen ci yàlla dogal na ba noppi salli wa sallim ala al mukallim wa doori yaatim wa sin wi ain foofu suñ boobu ko nekk àndal yàlla ci baatam dal dal dal ci bii ñun dëgg boobu te tax taxawal fa fa fa jumaa njëriñ les unions par yi ñu taxaw de ñu taxaw wax leen ji ngeen lañ ci jëm wax yàlla ko wax ñu waaw kon lañ ci jëm rek saat nag ñun ci jëme wax lu wax te na ko bisimilah nañ naan dem ci barabu sa unions par yi topp yoon ñag seen mataan bopp yi la waaw ni ñu ko gisee day ci mu ko waxee waaye nag muy tolloog nag xam-xam bi tubaab yi ci mën a dugal seen xalaat ndax tubaab yi xam-xamu tabax xam-xamu barab ak yooyu dañu koy defee ba lëf la ko waral de ne fa kooku yàlla leen ko jox ci mbir liggéey ñu leen gis ñu leen gisee wax leen ñu bisimilah loolee fekk da am nañu tubaab bopp ci seen digg jënd dara lu am maanaa moom lañ koy waxal mu lijjanti leen loola ba dugg ci jëndante mu doxal na leen ba lañ ci bëgg ñu am ko waaw nañu ko bëggee ci loo xam ne war na bu dee luy yomb lépp xam-xam ko liggéey bu dee ñu di ko wax lalaan lalaan moomee commerce la woon waaye boo waa kilifa yi doo ji dañoo jubóo woon jënd tër waxal ko ba sol ko te dañ ko bëggee noonu gi it amoon nañu bunt seen digg commandant bi buñ ci bëggee wax ak moom dara bokk ci ñi nga xam jiite ñu def bañ ko wax lool yooyu soxla ne woon ñu daal jiit lalaan ñu daal di jiit lalaan woo ko ñu ñu waxtaane lalaan ñaa ngeen wax day doy waar waaye loolu day ñu ko man suñu ci am xam-xam ay tubaab la ñuy doon ñu di leen wax séyar lañu doon ak di sedd séri di ñoom drëw ñu ñoom xam-xam boobu waaw ñu ko liggéey bi ñooñu ba ñu xam nañu ñoom ña waaye mën naa caa dem indi leen fii bu ñëwee ñu bokk ak ñoom jotaay ngeen wax leen li ngeen bëgg ñu tontu dañu koy defee lu ñu ci xamul ñu ko mënee ñu ngi ko defal daal tàggu moom léegi ci seen i barab la daanu dem Dakar indi na tubaab yi ñuy ñeent ñu waxtaan ak ñoom wax leen ko waaw yooyu ñoo tontu wax ni leen ba ñu ñëwee njëriñ ci kër Sëriñ gi lañ leen dalal ñu noppalu ko ba ñu noppalu ko ba war a gisaat nag ñu bokk jotaay kilifa yi teewaat ñu wax ñu ne yéen di di ngeen di soxlaa ba woolu ko bëggee dafa xaw a jafe ndax mbéy ya koy mën a ci sowu bi lay jógee tey jii sëñ Ba Dorobaal maa ngi sëñ Bakki sam sam moo xam ne moom la gis la ay doj. bu ñoo ndox yu génn fi bitti. tege ci ko suuf yu génn fi bitti. def lu mel ni këll bi ba suuf sa yaatu daj na ko ba yi ñuy wax saxaw. kooku bari la. dugg nañu si saxaw yaatu bi nga doj daal ay kël daal loolu daal man ko muy ay doj ñu waaw ñu kon loolu mat naa seet loole sëñ Fallu nett na ni doy yooyee nag waa ji sàmm wax bañ ko bañ ci jubloo bëgg ko seet loola mool fële fële wooma ba mu wooyee lii leen sëñ bi waxtaane woon ñoom ñeent fekki ko woon jotaay boobee waaye sëñ bi fële ba nekk li jotaay boobu gannaaw bu ma wooyee ah, waa ji wax ko muy bañ na ci laa ne ndigal li ànd ak waa ji mu woon ma bañ moom ci bopp mu wooyee mais ba ma dikkee Tuubaa fas laa ko waree ànd ak li nag ci taalibe wala yoon na juróom ba juróom ba waaye gasam bu jiitu moo war ko moo war topp ci moom bon di ko fa dojale fi yoon dog kon duggee fa dojale <coughs> bay gis la mu waxoon lépp di dëgg doj yaa ngi defi këll génn fi di bëgg gis coow bu bëri boobu nag loolu lépp lépp ba ñu ko gisee. ñu bant yu dëgër di àkkati ca doye di ca àkkati di ca àkkati di dajale di ca àkkati di dajale ba bët ak ëmb. kon de ma diri sama kaala lal ko yoon bi ca doole nu àkkati ca doye pour que si fasoo ko. dafa dem di ki njëriñ. ba yooyee ba ma ko woon ko fi rek parce que muy ëmb ba yooyee. dañoo lalaan poids ko. wala booba doon tubaab yooyee ñooñu ne ko doonoo am doj bi ba indi lañu ci seet ko ba xam bu seet doj la de ah li doj day rafet li doj day bi bu mënee am defe naa ne du jar ñu wut yeneen ndax yu doj kat xaw ma fu ngeen ko gisee waaye day war yaa baaxi yaman laysa yamutu sarmada bi xaqi wajhika wa jaahi ci ak mu jëm la wax sëñ Kale Sey ak euh, sëñ Mat Lamine Diop ak sëñ Mbacke Diouf boole leen ak sëñ Modou jox leen ak buum yabal leen fii ci kër gi tuddoon Touba muy fii jumaa ji nekk tey wax leen ni leen bu ngeen demee na ngeen ma fa nattal néeg bu gudde nangam yaatoo nangam ni leen bu mu amu Uber wala bu amee Uber it na ngeen ma indi doom ba foofa laa jëm ak samay bagage te bëgguma gaa yi nga xamante ni dañuy naan saxar bu ëllëgee di ma tiim wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ci jamono la soññe nag ci liggéey jumaay Tuuba yaa nga xam ne ca tukki bala ko suñ borom mayoon muy yu jooju ak ju Tuuba yu njaareem sotti ci ak nekkam jee ca Tuuba tubaab yi wax ko ni ko jumaa ji faaw mu am compte banque ndax tubaab xamut tool àllar boobu ñuy bay xamut addee ju ñuy indi li mu xam mooy compte banque nga dajale dara def ca bu tàmm mu tàmbali bu jeexee mu arrêté bu dajale waatee dara mu tàmbali sëñ bi daal di laaj lu ñaar fukk juróom-ñett ba dajale woon ci cinq millions ñu def ko ci banque BA banque Afrique occidentale autorisation bi nga xamante ne ni moom la doon demandé itam ñu may ko ko ci la 30 avril 1926 ñu ubbi compte gi ci la 30 août 1926 ca ñaar fukki fan ak juróom ca weeru safar ja la maam Thierno door a jóge Daarul Moxti ndax moo doon porte liggéey bi moo doon jëwriñ ji ginnaaw bu leen sëñ bi woowe mook Cheikh Mouhamadul Moustapha ak maam Cheikh ak sëñ Balla Coro ba dénk leen ko maam Thierno moo doon taxawu liggéey bi soññi seex sépp ñu ñëw biñ ñëwee itam ñu ngi xiblaal jumaa ji ci penku kër gi ndax booba kër gaa ngi fi jógagut penku kër gi moo doon diggante jo jàkkay jullikaay bi ayit bi jëm barabu sëñ Jenn ëmb barabu soxna may bi foofu lañ tàmbali woon liggéey bi foofu itam la sëñ bàkk bu sax xiblaaloon maam Cerno di jëw jëwriñu liggéey bi ñu soññi seex sépp diiru fukki weer itam lañ fa liggéey muy weeru safar ba ca tabaski wa liggéey ba arité bañ tabaskee ca tamxarit wa sëñ bi wuy ji boroomam tubaab yi rëccu am lu leen naqari am lu bari lu leen raw ngir sëriñ bi am na leneen lu ñu bëggoon ci moom ginnaaw bu fi jógee waaye bi Cheikh Mouhamadul Moustapha jëkkee ci seeni xel ba yóbbu sëriñ bu mag bi tuubaa euh, colonialiste bi mujjoon na am rëcc gu mag goo xam ne biral na ko. lii nga xamee ni am na tey am na ñu ndax xarit loo xam ni warul woon am ndax dëkk bii ñuy wax njëriñ bunti commerce addina yëpp moo ci gën a dox. lu ñuy jënd ak lu ñuy jaay commerce ko ubbi ko koo na waar loo am ci marchandise bi mu jàll ba saasa ngay doon di jaay sa commerce bi dox na naa nag jooyee na ko moom sëñ ko saa ko na doon ci di ko nu a gaawee loolu duñu ko mën a wéer ndax terrain yi sax mujj na lu pàkk tuuti tuuti bala nga koo jënd da nga loo xari bi la ko loolu coow loo xam ne defoon ko coowal bi kilifa yi daje fekk bu soo am na àndandoo boo xam ne nga daan ko soxale moom wala bañ koy topp ba di ko lijjanti ba sëñ moodu dogu ci woon leen ni de def naa ko ba noppi tey lay tee loola du mën a am ndax nañu kaa wax moo di sama bokkam bu fekkee dandu sëñ bi jëwa si fenn Pierre Tallery supposé entrepreneur bi nga xam ne moo fexe woon ba jot ci jumaa ju njëkk ji Serigne Touba bëggoon ñu defaral ko ko ci Touba. Pierre Tallery moomu am na procès yu bari yu ko séqanteel ak murid yi wala représentant murid yi bokk procès bi ci njëkk Blaise la ko la ko amal ndax booba dafa bëggoon a lever immunité parlementaire am journal bu ñuy wax France coloniale 5 septembre. moo ñu leeralal loola lan moo doonoon sabab bi ak fu procès bi mujj am na journal bu nekk France ñu koy wax Le waa journal de defence sociale ci génnam ci alxemes juróom benni fan ci weeru octobre 1927 mi ngi wax procès boobu naka la fa doxe ci diggante Blaise ak Tallery bi ñu génnee ci procès boobu te Talla Ri amu ci ndam Talla Ri dafa daal di song njabootu seriñ Touba gi ngir liggéey bi ñu nangoo ci moom ak ouvrier yi nga xam ne France la leen jëlee woon indi leen fii bi sànce bi jeexee mu wax ne dañoo bëgg a ñibbi ñu dédommagé leen laaj ay droit yu baree baree bare procès boobu nag Massourang Sourang Talla Ri Lamine Gueye Blaise Diagne ak Ngalandu ñoo nekkoon ci wet gi ak wet gee di ko séq di ko lijjant yi ca France bi ñu àttee itam ñu wax ne murid yi condamné nañu leen pour ñu fay taler yi fay ga diis ñu interjeté appel mu dellusiwaat ci weeru juillet 1928 ñu door a àtte àtte ba condamnation bi wàññeeku lool ñu bëggoon a defaat sax appel ngir annulé ko waaye Cheikh Modou Moustapha ne amuñu jotug nekk fii di def ay procès nañu jox kii li muy laaj te nu dem liggéey li nga xam ne moo nu yitteel donte ko nag sax Blaise topp na Tallery moomu moom ba condamné ko définitivement en France. Mmh. juillet 1927 conseil yu famille bi ci njaareem. ñu ànd ak Cheikh Moustapha si pésul ko ñi nga xam ne maandu nañu jàpp seen bopp maandu ca wéeru wéeruwuñu mbir mi si moom waaye ne nag si lépp di loo xam ne xam-xam seen moodu lay jógee ñu xam gannaaw bi ba bañ fa ne ci seen biir seen moodu ngay njëkk a wax mooy yi fa fal moo wuyu mu ne ko suñ suñ ñu nga daan wax tur wi muy door a jot lob nañ ko nit jot la niital te wax loo gis waxal loo gis muy sëñ bu incha allah gis yi may xool ni dañ sëñ bu incha allah gis mu ne ko ak man bët yu man ni may moom laa gis sëñ bu rek laa gis bët incha allah waaye danaa jënd 25 juillet 1927 intronisation officielle au Cheikh Mouhamadoul Moustapha bëgg seexi murid yëpp daje commandant de cercle bi génn gouverneur général génn mu daal di yi Yelly Manel Fall ne ko àndal ak chef de canton yi ñu dugg ci oto gouverneur général Yelly Manel Fall war fos ànd ak chef de canton yi ñu dem ci tenue su njëriñ ba ñu réunion fa mu ne yéen seexi Sëriñ Tuubaa yi dem leen kër gu mag ngeen nekk na fa Cheikh Sëriñ Touba yëpp ñëw kër gu mag nekk ko fa ba ñu jógee ci tennis njaarim ba ba ñu ñëwee ñu teg seen table gouverneur toog commandant bi toog autorité yi ñu àndal toog euh, garde cercle yi ñu àndalan boobu ñoo am gouverneur général wax sëñ Modou Moussa Mbacke moom lay waxal waaye yoonu murid yépp nag la waxal ndax booba dafa am ay lettres yu bari mm-hmm. ñoo xamante ni yoonu murid jiitalu gu mm-hmm. fu nekk ñu di ko mm-hmm. dama mënatut su ma yoonu murid woo nekk mënatumat bu ma yoonu soxlaa ku nekk dama woo bëgg yéen yoonu murid ngeen jiital kenn su ma soxlaa yoonu murid woo kooka bu ma yoonu murid soxlaa kooka woo ma ba mu waxee loolu nag Cheikh Modou saa Mbacke aleyhi salaatu wasalaam moo wax ni kon nag loolu day jar woo saa bàyyi Cheikh Ibra ndax moo fekke cosaanul yoon wi hmm. foofa la ñu toog ñu daal di yónnee ci maam Cheikh Ibrahima Fall mu ànd ak mbooloo ñëw ba nga xamante ni ñëw na bëj bi fi Cheikh Modou Moustapha toog ba mu ko ba mu ko dàndeelu tolloog ñett ñett ñeenti meetar la dóor ñaari bëti ci suuf daa raam ñëw ci Cheikh Modou Moustapha Mbacke alayhi salaatu ak addi ji mu indi la indiwaale jël addi yi jox Cheikh Modou Moustapha fa la débat ba tàmbale ba mu defee loolu ba noppi si mu toog jugugu fi gouverneur fëgg taabal ci règle bi mu yor daan ni li ma doon seet gis naa ko jërëtul laaj kenn ndax bi séexi murid bi yëpp toogee man ni dama bëgg ñu jiital kenn su ma yoonu murid soxlaa woo ma su ma soxlaa yoonu murid woo ko ñu ni na diw ñëw damaa defa ne bu ñëwee mooy doon seefu murid yi xam nga tubaab seef la xam damaa defe mooy seefu murid yi waaye bi mu ñëwee nag léegi mooy mooy jaamu sëñ Modou Moustapha Mbacké bi kon nag li ma doon seet gis naa ko dal di ni daal di yëkkati kàddu moom gouverneur général. Mm-hmm. dal di ni yéen yoonu murit bu ma déggati kenn nag ku may woo. ndax question bi bi mu ko posé. Mm. yéen joxuñu kenn autorisation bii kenn ñu ko joxoon bi mu ñëwee gis naa ni mu def boppam am na ku mu jébal boppam. léegi nag léegi nag ku ma woote. Mm-hmm. wala nga jëngal dara dinaa ko diggaale yow daal ni jiital naa Cheikh Modou Moussa Mbacké gouverneur général wax loolu. ba mu ko waxee nag saa si fan ñu bëri. fi mu toog bi Cheikh Moustapha Mbacké daal di joxal joxal góoró général ni ko hey wéyal ak sa adduna seet ni ngay doxali si àdduna te bàyyi nag suñu diine. Mm-hmm. ndax laa ikra fii diine diine amul forcé. Cheikh Modou Moustapha Mbacke mii baayam doyawan mm-hmm. nu ànd ak moom mm-hmm. ku mu doy ànd ak moom ku mu doyul moom nun ni mu doy ni nu baayam doyawan waaye kenn du ci forcé kenn forcé wul góornóor u si maam Cheikh Fall moo daal di tas loola pasteefu murit feeñ ci taxawaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ bi ca ndigal lu jëkk la waxoon na leen ni dama ba ngeen jublu ci te bàyyi néeg néegal bi moo tax ginnaaw sëriñ bi rek sëñ Moussa di bañ loola tax mu soññ njaboot ga ñoom ñëpp mobiliser leen ngir jublu ci liggéey bi. lay mu waxoon nag ni néeg néegal bi nag mel ni lu ci affaire yi mel ni lu ñu ci bi ñu mu jëlee ci baatu Seexu Xaadim la mu wax ci jumaa wànca ak ñu nekk waaye nëbbu la mu ci jëmee da ko woote wax li mbirum Tuuba laa ko koy seet nañ ci jëmee man nag aw jëyee ngi te ma jiital lu jëm ci lu ma am danaa ko def lu ma waay jox li ma defal ma ko ci danaa ko bi nag da seet ñi nga xam ne ñoom la réew bi ñu amee baat waxtaan ak ñoom ba xam ñoom ñoo ci def ak ñoom moo waral mu gis ko maa ngi lay njëriñ maa ngi lay waaye ba ñu ko gisee ba noppi boobu ndaw wax ñu dégg na pour soxla sëñ moom lu mu waxee waaye ah nañ ko waxee jumaa boobu day jafe jafe lay doon ndax nañ ko waxee ak nañ ko bëggee loolu faw mu baaxool ju mu jege yoonu saxaar gi Cheikh Moustapha gàntuwul dara lépp la nangu lépp lu mën a tax rek li mu bëgg mu am jumaa ji bi mu ko bëggee te di ko ci réew bi ñu wax ni tubaab yëpp moom lamb na tubaab yi ba xam loolu yi na muy amee tubaab bi wax ko. jumaa ji may nañ la autorisation ca plan bii nga indi waaye jumaa ji matériel bi koy liggéey matériel bu luur lay doon. ndax booba fer bi ñu ne fer toor fer toor mooy fer bi am ay ay ay ay rayon fer boobu booba dafa am fer bu ñu wax duu fer du mooy fer bu retax bi mm-hmm. booba boobu France yi ko liggéey mm-hmm. waaye booba toor américain yi ko liggéey mm-hmm. te ñun nag bu ñëwee ci bato ci bato yi nag léegi loola ay oto te boobu oto yi oto yi cinq tonnes am ay gëli mënuñu ko sëf ñu ne faaw da nga jël ab raay da nga ko jëlee njaareem ba Touba Touba bi ñoo ko proposé loolu faaw da nga jële ab raay njaareem ba Touba ra euh, train bi ci daw saxaar ko nag mooy transporter maanaam euh, matérielu jumaa ji matériel lourd la ba ba Touba su demee nag ba Touba su ko defee la ci des maanaam euh, fa mu yem diggam ak jumaa ji mu di idée ko mën a ci seen bopp loolu fala baatub raay tàmbalee mi ngi daa jógee xam-xam maa ngi jógee ci commandant de cercle bi ñu di ko wax Edmond Pal gannaaw bi borom ndar yëg ko gouverneur général yëg ko moo du di lijjanti loolu yi nga xam ne mooy tax saxaar gi dem Tuubaa ba jumaa ji fi sëñ Tuubaa bàyyi ci ndigalam mën a am rek amul beneen soxla wutul leneen lu dul lii am rek jumaa ji rek tubaab yi lijjantee ko wattandi ko loolu amul dogal ba fi mu mën cee wax ak yow dara lu koy taxawam waaye dañoo am ñun yirif ña nga ca kaw mooy ministre de colonie da koy yëg kon nag ni nga ko bëggee bindal ñu fam bind bi mu jàll bu ñu demee lu ñu tontu nu wax la ko loolu la sëñ mënu saa def mu bind mbind moomee eh, sama maga doon bind man mii mbind ma dem ba mbind ma demee kilifa yi tontu ba ne ni yoon saxaar geneen ci réew ma de moom mu tam daanaka rek ndax yan yan fa waroon def def nañ ko ba noppi maa di saxaar boo xam ne kii day jóge Dakar dem Ndar compagnie bi ñuy wax Batignolles la ñoom moom saxaar ga bindante ko gouvernement bi nga xam ne ñoo nootu réew mi nekkal fi seen bopp waaye gouvernement bi di surveiller saxaar ga mooy DSL Dakar Saint-Louis ñu wax ko ñu wax loolu nii na sëñ Modou xam loolu ba seen dat jeexee ci li ñu fi war a ne ñu dëdd gouvernement bi fab sawar gi sawar gi boo ko fabee mu xam ni intérêt général dëgg la yor ci réew mi sawar baax na loolu cim réew mu dal di wax ni kon dañuy seet beneen sawar boo xooy dana fi jóge jëm xaay ñu di ko wax Cees xay mooy TK TK boobu la dem na ba ñu prolongé ko ba fii fépp dem na ba kuli koro sori na waaye seen den seen intérêt ngi ci bu baax intérêt maa ngi ci bu baax ñu dellu si seet wax ni dox gii dikk ba kaw la gu am njëriñ la foofu mën na mujj sax di port de commerce ñoom tubaab yi loolu lañu ñu wax te def nañu fi benn trait boo xam ne bu ñëwee ba neew bu saxaar gi dikkee Guinguinéo dafay daal di dévisionné wuti kaw la bu demee ba Kaolack ñu def ko fa boobu saxaar yi def nañ ko ba noppi geneen saxaar a ngi fi goo xam ne saxaaru Kaolack googee geru 14 18 dafa dig ah, réew mi am loo xam ni mënuñu fee ñàkk di fi jëli mooy fi ragorifié boo xam ne day toppatoo nag yi ñuy rey ak yooyu lépp mi ba ñu fa installé di ko defar waaye booba oto yi fab dara yu amul ñu obligé prolongé raay ba mu dem Lindiane fekk fa machine boobu mu di ko lijjanti googu saxaar gi noppi doon geneen saxaar gi ci mooy de eh, mooy el el lugar yu géer ñu ne moom itam toppatoo nañ ko ñu wax ni jolof réew mu yaatu la waaye du ko ubbu fa ubbu ubbu gi nag bu fi saxaar demee dana ko ubbi fekk bu na Njaay mooy chef de province bi doon na Albury waaw waaw tubaab yi waxtaan ci nañuy nekk ci réew ma ak lu tax dëgg ay du fa dem loolu lépp boo na gis Xaadimu Rasuul ñaanloo ko ko ñaanloo ko ci suñ bi ñaanal nañ boo na gis soxor ds googu noppi na kon nag suñ li mu bëgg muy train beneen bu am ci réew ma daaxal nañ lool moom ak ci moom sëñ Modou Sa mi fils aîné mooy taw moom mag ki waa këram moo nu ko may ci jikkoom ak meloom kon nag la ñu jëlee ci sëñ Modou Moustapha bu ñu demee jaral nañu lépp luy soxlaam lu ñu ci mën nu defal ko ko kon nag ni ñu ko koy mën a defalee ci ni ñu ko gisee moo di nit ñi xam xamante ne ñu ñëw di liggéey liggéey ba ñun duñu ko def duñu joxe kenn duñu ci dugal kenn su ko mënee dañ ko ci fekk jéem ko rek ak nu mu ko bëggee du jéem koo def rek ndax meloom ak jikkoom rek ak li de suñu digg moom rek mu mat kilifa lool di gor soo xam ne bu waxee yow wax ja dara bu nu ko rëndal di am jom amul fit hmm? te yéene ñëpp tey dox jàmm di ko di ko liggéeyee rek di teral jëpp di dimbali ñëpp loolu xam nañ ko suñu digg moom kon nag am na sart yooyu bu ñu ko ko joxee bu ko nangoo nu def ko sart yi moo di ñett la moo de nit ñiy gas ak di sëkk ndax yoon sax du def loolu dafa teg ko fa rek dafa am liggéey bu metti bu yem bu fekkee liggéey boobu mën naa yoonu nit ña koy gas ñun daanu fi di ay tubaab yu ànd ak ñoom amee xam-xam ba di yoon ko woon ñu di ko def lu ñu leen ci digal ñu def ko bu ko defee yoon saxaar gi daañu jéem a dugg ngir noonu mu mel rek loola moom la ñu wax sëñ Mor Sow ñu sart yi nag yett la junniy nit ak juróomi téeméer bu ko amee ci nit boobu moo moo leen di ni ñu bind leen ñu nekk fi di liggéey ci bato bi saxaar gi war a dox jëm Touba muy liggéey boobu ñuy wax gas gas gas bi assainissement chemin de fer bi su ma looloo loola ko xam su fekkee dund bi ñuy fekk muy seen dund bii dañuy koy soppi soppi yi moo di déedéet dañuy soppi dund bi dañu am su ko mënee di leen ko jox muy seen ration ñi liggéey liggéey boobu alors nu seet loolu ba xam ko gannaaw loolu responsabilité bu ci mën a xew te yoon di ko toppatoo moo koy gàddu moom sax mu sax yett yi bax nañ ko bu ci mënee dara ñu def ko loola moo jóge ci kilifa yi ci France ñu wax ko ñii fi ne gouverneur général gouverneur du Sénégal administrateur commandant la Diourbel ñu wax sax mu sax nekk di ko lii mooy lépp loo xam ne dafa am ba mu daa am ko wut rek kon nag loolu rek la doon wut jumaa ji rek jumaa ji nag mënut a am te dina yoon sax kon nag maa ngi wut yoon saxaar gi rek maa ngi koy lu ñu ma ko mën fexe ba ma am ko ko lu mu doon nangul naa leen ko bu fekkee dañu mënoon bala du ko mën a am def suñu defal ñu soldaar soldaar gi it dañuy wax wax sangam lay tam wax sangam lan lay bàyyi man nangu koy mën muy ñu laaj sama bakkan yi ma joxe sama bakkan ndax sëñ bi ma gënal lépp. 1928 le gouverneur du général Léonce Alphonse Noël Henri Jaurès ci la nekk gouverneur wu Dakar ci la accordé ci conseil privé demande autorisation immatriculation 400 hectares yi nga xam ne mooy suufu Touba. début 1929 ci la Cheikh Mamadou ñaan ñu bàyyeel ko suufu hectares yooyu ci 5 millions de francs. mënees na xayma murit yi lan moo doonoon seen poids économique jamono bi ñuy jublu ci songu jumaa ji ndax li tubaab yi doon laaj bari na te ni ko Cheikh Moustapha Sanjaafoo am na nees ko mën a expliquer neneen ci nu dul nu daanu kate boo ci jëlee benn parti rek ci activité bu ñu daan def muy mbay nga seet ci exposition coloniale wàllu gerte kese waxuma dugub waxuma euh, jaayum mbaam parce que euh, commerce mbaam xaj na léegi la mais mbaam tubaab yi mbaam rek moom moo leen itteel ndax woyaf gu mu woyaf ak ni mu mën a baye ak fi leen mbay tollu woon euh, waaye fas yi lu mel ne piment kaani ak yu noonu lu am importance la loo xam ne danaan dem ci exportation yi soo demee ci France coloniale exposition bi le flux de l' importation et de l' exportation da nga gis produit yooyu li mu représenté ci exportation bi nga xam ne moom la Sénégal doon def kon gerte gi daal 1927 421 274 tonnes la ñu béy mu représenté million millions 300 mille 953 1927 mooy at mi fi sëriñ bi di jógee. loolu la murit yi doon pesé. 429 504 tonnes. di représenté million millions 963 mille 120 francs mooy 1928. 1929 année bi nga xam ne ci lañ tàmbali liggéeyub officieusement liggéeyub euh, raay bi. 419 mille 391 tonnes. représenté 566 millions 536 mille 543 francs. dañuy remarqué foofu ne. prix gerte gi lañu ñu aj moo tax eh, production bi wàññeeku waaye xaalis bi yokku kon yaakaar naa ne eh, kenn ku nekk sañ naa wax sax ne kon lii kat mbayum gertem Sénégal gépp la murid yi moomuñu ko waaye bu boobaa it dañ leen daal di delloowaat ci mbindum tubaab yi nga xam ne ñoo doon jënd gerte gi ñu wax ne te wax nañ ko fu bari ci archive nationale wax ne murit yi ñoom ñoo yoroon mbayum gerte ñoom rek la seenum xel ak seenu xarañteef ak seenu pasteef jubluloon ci def ci lu mucc ayib loolu kon firndeel na ne bu fekkoon ne sax dañoo jël production bi ci digg bi njëg gi 630 millions yi ñu dagg ko ci digg bi lu mu gàtt gàtt gàtt cent 330 million murid yi danañ ko am ci 630 millions yi te leer na ne am nañ ci lu ko ëpp kon boo gisee valeur wu semaine de fer bépp bépp bépp bépp bépp su ñu eggee ci li ko France budgétisé matul sax xaaju xaaju xaajaatu li murit yi amoon 1929 ci seenu mbay kon loolu moo lay wan ne murit yi xamoon nañ bu baax fu ñu doon teg seen tànk waaye itam en dehors xaalis beeg lu demee noonu Cheikh Mamadou Moustapha li ko ñoroon dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bëggug sëriñ bi am. da ngay indi junniy junniy manœuvre. Mhm. ak juróomi téeméer. technicien yi ñu àndal ak ñun ñoo koy wut. waaye réunion boobee kër commandant la amee bu njëkk ba kooku muy première réunion bi première réunion bee boobee ba ñuy ñëw. gouverneur général ñëw na. gouverneur du Sénégal ñëw na. commandant de cercle bi ñëw na ndax këram lañ ko defee monsieur Balabé mi nekk mu nekk premier directeur semaine de fer ñëw na ak tubaab yi ñu àndal. sëñ Moussa Mbacke nag woo saamam si Rafaal. bi nit ñi ñëwee saam ci Ibrahima waa ji kër kër Cheikh. Mm-hmm. dafa xaw a sori. Mm-hmm. diggam ak kër commandant bi mu ñëwee garde cercle yi fi nekk xool nañu lim bi dugg ci Cheikh Mouride ak nombre bi. Mm-hmm. ñu fermé bunt nii la dugg doy na. waaw Saam Sira Fall nag ànd ak mbooloo mi ñu yëkkati baatu laa ilaaha illallaah. Saam Sira Fall ni Cheikh Moustapha. lu ñu la sant nongol. lu ñu laaj ci mbooloo nangul su fa amul mbooloo mu ko jotee waxi murit la te daa wér xob geer yi ak garab yi dinaa ko suppi aw nit def ko ñu nangoo liggéey ñu daal di déggoo ci loola na leen wóor ni tafaay bamba dooma xam baay demoo nag yoon moo saxaar boo xaay day jógee njëriñ dem ba Tuubaa nga yow jumaa Seex Bamba ndax jumaa ko dem te laaloon na ci ndigalam ci teewam kon nag la mu ci wax lépp dara wu ji dara wu ma ji man xam naa ko moo di nañ ci jëm yoon bu rëy bi ne mu bëgg mu jël loole ba mu ko liggéey te na ju baax war a mel ak fu mu jëlee la muy ba kilifa yi mu digaloon loole ba ñu ci seen bopp kese nee nañu li suñu wax mel ni doy na waar de waaye waaye yëpp yëttam yëttam la wax yëttam ci jumaa njëriñ ji ba des moom la jumaa jumaa jay toll yëttam ba des yëttam ba lay lay dem ba des waaye jafe na lool waaye nag bu nit lu wax noonu ni waaw kilifa yi ñoo waxante loolu ñoom kese jindi boobu yu juróomi téeméer da ko samba suwaa yëgle ci njëriñ wax ni maa ngi koy woote képp ku lim julit wax naa la ji ndax yool bu rëy ci sëñ bi wax kuy julli rek yéene na jot ca maa ngi koy woote nag lépp loo xam ne nii ko ci sama kàddu leen ko wax ndigalal sëñ bi kon ak yoon sawaar gi laaj nañu ma junni nit ak juróomi téeméer junni boobu juróomi téeméer ku bëgg a bokk ci liggéey boobee bi ñu sëñ Tuubaa bi moo di da ngay yow joxe sa tur bu la sa kilifa joxe ñu jël aw turam jël lim boobu nag bu matee ma yëgal ko tubaab yi huwa alwaarisu xaqan abaahu taaja huwa alxawsu xadaa ba ndigal loolu génnee ca laaj nit ña Cheikh Ibra Fall joxe juróom na boo ko bàyyi woon de nga bañ koo artu dana joxe lépp benn maa dogu ko ndax ku ne lan moo ba mu ko joxee ba noppi sëñ Manu Mbéréer Mbàkke moo ca teg téeméer sëñ Amsatu Lo bu nga am teg ci téeméer muy juróom-ñaari muy juróom-ñeenti téeméer juróom-benn téeméer yi ci des sëñ Modou Sa nee na sëñ Masamba euh, man ah sëñ Basiru sëñ Baara noo ko seddoo muy juróom-benn téeméer nu boole ko juróom-ñeenti téeméer muy judeeg juróomi téeméer ma gis ko ma daa yëgal ko ko mu yëgal borom daal borom daal sax ñu ñëw seet ci lim ba ñuy ñëw ñu ngi jaar ci diggante directeur chemin de fer bi ñu di ko sardi ab colonel la mu yebal leen ñu ñëw ànd ak commandant yi sëñ Modou sax ni ko nit ñi dañuy seeti ba xam ñu toog sëñ Modou génn di ko fi place jumaa ji ñu woo ñu daje bi ñu rappel nit ñi rappel général boobee sama mag di doon ma ca boole ba ñu ko seetee junni ba ak juróomi téeméer mat na ko ko tubaab yi laaje woon tubaab yi ni ko nit ñi mat na. te lañu ko joxee début am na ñu ni 24 millions ñu ni 22 mille te yooya jamono xam te bu doole ay milliards la. mu nungu leen loola waaye tubaab dafa mën a naxe étape par étape na lañ ko def loola ñoo ci loolee te la war a fay lépp. fukki tubaab ak ñaar lay fukk ak ñaar ñu wax ko dat ba muy ñëw mu déglu leen ñu ñëw ba ñu ñëwee fukk ak ñaar lañu benn commandant ñëw na ñu di ko wax cent mana benn capitaine buy wax Crozant ñetti lieutenant bu ñuy wax René Picard Sedon ak Dalal juróom benn ñeenti sergent chef ak sirk ak berwe ak ak ak dofin ak ñeneen ñaari sergent yu duy ñaar sergent chef Albrecht ak Guéguin yi douze tubaab yi ñu ñëw bu ñu ñëw ci commandant lañ jàpp commandant moo leen indi ñu def service bu temps ñu santaane ci école boobu baratul boo ñëwee ca temps yi kër gu ma école boobu fa la ñu leen loose ñu fanaan fi seen guddi bu ñëw. mel ni benn camion bu taxaw beneen oto bu moom tubaab yi wàcc ci oto moom matériel bi ñuy daale nekk ci camion boobee bu tubaab yi wàccee ba ñuy génnee camion ya indi nañu lu ñuy wax indi nañu loo xay ñett tànkale taxaw dañ koy somb mu taxaw ñu ko wax colimoteur dafa am weer bu réer réer boo xam ni mu nga doon ko tiim nii di bu weer ñu muur ca euh, lu mel ni parba yu ñuul bu ba ci suuf moom ay lamp yu mag kooku ba ñu ko wàccee woon tubaab bi dikk nañu boo wër ko seet ñu door woo Seex Mustafaa mu ñëw taxaw ñu ngi soo keroog mantu cooy bu rafet ak solo bu noppi mantu cooy bu rafet la ci teg kàlla bu farkal moom di ko nett bi yi ñuy ma way doomi sëriñ bamba yi nu yaakaar ba ngeen xam ni sëriñ bamba moo di muxtaar jëkkër ahmaduna mustapha mi dib ba ngeen xam ni jiwu ren wi ngeen bayoon daaw ca tànnoom gala def mustapha mu mu tànnaat kolo lu buur tànn weesu naa ñaaw sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànneet jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit